loolu du mën a baax na. kii leen ayca ayca bisimilah ayca bisimilah. leen góor waay leen góor waaw waaw leen góor Loolu ba am nga yegg bu dëkk loolu ba xamal la ko dàqal mu la Para, bu baax. waaw. nee na jëf xeet na ko lool. waaw jërëjëf. ndax dëgg yàlla ñu fi ko nee na yëg na jàpp ji te gis na ko. waaw teraanga yi nga ko defaloon it. dëgg yàlla kawe na njortam. waaw nee na moom moo wax la ne la. fas na la yéene def sëriñ. fas fas na la yéene def bàyyi. incha allah jàpp nañ ko baax. nee na xam na ni dëgg yàlla. li nga ko wax keroog. tax na xelam dal. li nga ko defal keroog tamit. tax na xelam dal. ne keroog bi mu fi jógee. ba suñu yoon yàlla tey. ay mbiram daa gën a yokk dara delloo ginnaaw. incha a moo tax jëf ji na ko lool. da di ab tàmbali rek. waaw ba na may dama ci profité di ci sant. sama cantu bopp. ndax man si saal bu defee lii man la sagal. man mii la sagal. jërëjëf ndax umpul umpulewul jàpp gi ngeen ma jàpp. man nag dama laa fas yéene yemaleen dara. waaw naa ko jàpp naa bu baax. ndax ndax bopp mën a bii bii bii bi nga njëkk a jot Bukan na bagus. Kaç ba bir ses ver bakın bakın da bak. Diyor bilgi, diyor bilgi. Lo da bu bilgi. Gel ይገልገም ዱቆ ዱቆ ነው ዱቆ ይገልገም ቢሰ ይሄ ነው ነው ነው አይ ምን ነው ነው ለከኪ ምን ነው ምን ነው ጂሊ ጂሊ ምን ነው ጂሊ ለማ ቱዱ ገም ቢ ለማ ገም ቱዱ ጂሊ sant bu baax. waaw. nee na jëf ci xeet na ko lool. ndax dëgg yàlla bu fi ñëwee nga jàpp ko nee na yëg na jàpp ji te gis na ko. waaw teraanga yi nga ko defaloon it. Hmm. dëgg yàlla kawe na njortam. waaw nee moom moo wax la ne la. Hmm. fas na la yéene def sëriñ. fas fas na la yéene tamit def bàyyi. incha allah jàpp nañ ko bu baax. nee na xam na ni dëgg yàlla. li nga ko wax keroog. Hmm. tax na xelam dal. li nga ko defal keroog tamit. Hmm. tax na xelam dal. te keroog bi mu fi jógee. Hmm. ba suñu yoon yàlla tey. ay mbiram daa gën a yokk dara delloo ginnaaw. incha allah loolu jëf ji mu jëf. xeeb na ko lool. da di ab tàmbali rek. waaw fa tax na ma dama ci profité di sant. Ah, sama cantu bopp. Ah. ndax man Saal bu defee lii man la sagal. Ah, man mii la sagal. ndax umpulewul jàpp gi ngeen ma jàpp. man nag ñoo ngi nii kër Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadilou ànd ak jëwriñ sëriñ lamin ñu bàyyi ko ci jàmbaari Cheikhul Khadim sëriñ Saalihu Mbacke. moom sëriñ Cheikh Béthio Thioune muy jàmbaar ji nga xamante ne tey jii moo wuutu waaye baayam bu baax li Serigne Cheikh Béthio Thioune muy Serigne Saliou Thioune mu yebal ñaari xabboon yu rëy yii ngir ñu indil ko jàmbaari Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moom Serigne Falilou gis ngeen délégation bi nga xam ne moo ànd ak sëriñ Lamine Diop bi nga xamante ne jëwrinam la di transitaire Cheikhul Khadim jàmbaari Serigne Cheikh Béthio Thioune jàmbaari Serigne Saliou ji mooy ñëw fii ci kër Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke indil ko ñaari boon yu bàyyi ko ci Serigne Saliou Thioune jàmbaari Serigne Cheikh Béthio Thioune bi nga xamante tey moo doon baayam doon sa baay nag ak doon sa baay du benn moom nag moo doon baayam tey jii ah Serigne Saliou Thioune jëf jii nga jëf rëy na lool tey jii de jëfal ko nag njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke bi kenn ci Cheikh Abdoul Fatah Mbacke mu Serigne Fall mu ànd ak Serigne Fatah léegi ñoo ngi nii kër Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadilou ànd ak jëwriñ sëriñ lamin ñu bàyyi ko ci jàmbaari Cheikhul Khadim sëriñ Saalihu Mbacke moom sëriñ Cheikh Béthio Thioune muy jàmbaar ji nga xamante ne tey jii moo wuutu waaye baayam bu baax li sëriñ Cheikh Béthio Thioune muy sëriñ Saalihu Thioune mu yebal ñaari xabboon yu rëy yii ngir ñu indil ko jàmbaari Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moom Serigne falilu gis ngeen délégation bi nga xam ne moo ànd ak Serigne Lamine Diop mi nga xamante ne jëwrinam la di transitaire Cheikhul Khadim jàmbaari Serigne Cheikh Béthio Thioune jàmbaari Serigne ji moo ñëw fii ci kër Cheikh Abdoul Fatah Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke indil ko ñaari xabboon yu bàyyi ko ci Serigne Saliou Thioune jàmbaari Serigne Cheikh Béthio Thioune bi nga xamante tey moo doon baayam doon sa baay nag ak sa baay du benn moom nag ah Serigne Saliou Thioune jëf jii nga jëf rëy na lool tey jii de jëfal ko nag njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke di kenn ci Cheikh Abdoul Fatah Mbacke mu suñ Fall mu ànd ak Serigne Fatah léegi